ginaaw bi ma gërëmee ñii nga xam ne mooy Rama Ado Cissé ki nga xam mooy mooy Oumy Ndiaye Rufisque Awa Touré Kaolack Dieynaba Ziguinchor ak ki nga xam moom mooy Mariama Ndaw Bunkiling ak ki nga xam moom mooy Maguette Coulibaly moom tamit dëkk Rufisque ak Ndey Soxna Cissé mi nga xam ne aussi Pikine la jóge ak merci beaucoup ñii ñoo am initiative bi ñëw seet si ma ne ma age ñun dañu bëgg dajale suñu morom yi nekkoon ci COJER bi yépp te nekkatuñ ci ku ci nekk yaa ngi ci sa ruq sa commune te xëy na gise yañ daan gise amoon na solo ci parti bi bu ñu ñëwee ma ne leen loolu de dara gënu ko rafet looloo jur lii tey donc dama leen di jër jërëjëfal gërëm leen sant leen madame la présidente dañ lay gërëm sant la ci sa oyofaay ndax su la neexoon nga ne aw ma jot fii may wax ak yéen am na ñu toog siège ba di ko xaar ay audience yoo xam ne daf leen a war a recevoir mais xam couche bi nga xam ne moom moo fi nekk muy la gente féminine surtout tranche bi fi nekk. nekk ñoo xamante ne dañu am solo ci population Sénégal mais dañu am solo également ci population électorale bu dëkk bi lii nag premier action la mais yaakaar naa ne ko duñ fi taxaw te nga dinañ fa dem foog naa Aïcha di ngeen ko waajee nag ñoom Maguette Coulibaly ak ñoom Oumy Ndiaye waa Jëppal Derkele wax nañ léegi ne taxaw nañ pour accueillir leen fi may tënkee wax ji nag ci ñaari poñ la suñu dajalee jigéen ñi di wax ak ñoom ci waxu président Macky Sall dañ koo war a def xam ngeen lu tax président dafa sagal jigéen dafa siggil jigéen dafa yëkkati jigéen daf ko jox gëddëm mën naa lim tey bu ñu toogee exemple a ngi ni tête de liste bi moo mujj nekkoon na fi premier ministre nekk jigéen nekk présidente conseil économique social environnemental nekk jigéen tey suñu coalition moom la ñu teg ci li nga xam ne moom mooy tête de liste coalition Benno Bokk Yaakaar président Macky Sall naam ba mu ñëwee au pouvoir fekk na parité ñu vote ko à l'Assemblée waaye moom moo ko promulgué barke boo Ndiaye laa jóge Kenya demal animé panel ba pare joxe l'exemple du Sénégal sur le leadership des femmes en Afrique foog naa ne que ki représenté woon ce joli monde dafa ne tous les pays doivent s'inspirer du Sénégal parce que parité bi fi am amul sax ci ñoom dëkk tubaab yi loolu président moo ko fi def la loi sur la nationalité président moo leen ko defaral criminalisation du viol président moo ko def institution ak li nga xam moom mooy ay cër ci gouvernement bi mu jox ko ay jigéen affaire étrangère benn la ci énergie pétrole benn la ci ministère de la femme moom naturellement noonu la war a demee yaakaar naa ne ministère de la jeunesse mu jox ko jigéen suñu sœur Néné Fatoumata Tall mën naa lim ay post yu bëri jël DER jël 3FPT jël FONGIP lépp mu ne xale yu jigéen ñi ak man ñu jigéen ñi yéen laa jagleel lii sama nguur donc la direction nationale de la police jigéen jiite woon na ko mësul am armée donc ñun lan moo ñu desee au moment où le président de la république di promouvoir le leadership de la femme sénégalaise ñu am ñoo xam ne c'est des prétendants c'est des prétendants ñoo xam ne maanaam dañu bëgg a jiite nguur gi ñoom de jëluñu yoon boobu au moment Sénégal di criminaliser viol ñoom ñu ngi leen di bett ci ay barab yoo xam ne du seen cër du seen du du du du seen wàll. du seen yëf bañ leen koy jiiñ donc xam ngeen ne yàlla ak yaali yaakaar naa ne sénégalais dinañ ko xàmmee léegi nag yéen ñi fi taxaw li ma leen di laaj mooy est-ce que ak ni ngeen xamee danger bi nekk ci violence fet aux femmes ni ngeen xamee danger bi nekk ci ay viol ni ngeen xamee danger bi nekk ci violence ak discrimination ku góor koo xam ne da ko def Sénégal njaay yépp dégg ko xale ba mu ko def wax ñépp di ko dégg te ba tey mënu ko tontu bu sañoon procès du am kooku bu taxawee dafa bëgg a jël réew mi est-ce que loolu dal na seen xel est-ce que dal na seen xel est-ce que loolu na seen xel xam nga ñun nag sunu borom sunu borom def ñu fayeekul xam nga la xale bi doon woy ne ñafal-ñafal sunu borom da koo ñaf-ñafal ba demul ba mënul dem ba munul dem ci élection yi nga xam ne moom la ñuy dem suñu àq moo leen dal àq Adji Sarr moo ko dal li may wax yéen ak may dégg donc madame la président rassurez li may wax mooy chemin bi président de la république jël ci askan wi ci infrastructure yi ci épanouissement de la jeunesse ci li nga xam moom mooy li yëkkati jigéen ñi li nga xam ne aussi moo yëkkati béykat yi ak secteur d'activité yëpp ñun bu ñu xool lu ko yokk lu ñu xool lu koy wàññi donc opposition bi marcho leneen lu ñu bëgg a defoo yaakaar naa ne que ay ay ay ay wax la nii rek waaye ñun ci suñu bopp Ablaye jaan wax na ko léegi nañ ko daan defee xam nañ ko fa ñu daan jaar xam nañ ko te jigéen ñi moom suñu takkoo rek takku nañ suñu jàppee jàpp nañ suñu gëmee gëm nañu donc lii laa bëggoon wax ngeen baal ma ak remercier waat ñëpp Fatima Sow maa ngi koy gërëm di ko sant di wax ne ñoom Rokhaya Tidiane ak ñëpp en tout cas képp koo xam ne def na fii déplacement remercier naa la bu baax a baax donc les filles waxuma sax les fii les femmes bu êtes des jeunes femmes donc li ma leen di wax mooy politique amul ragal politique amul yox-yoxi politique amul ragal politique amul yox-yoxi dama bëgg ngeen jóg ñi fi ñëw ñëpp lii na doon ngir yàlla loo xam ne nañ ko dëkkee di ko def ci suñu koñ yi nañu jóg di waxat nit ñi ci leket yi nañu jóg ci wax ak nit ñi ci ndaje yi nañu jóg di wax nit ñi ci xew yi ndax ñi ñi fi ñu nekk foofu lañ leen mën a fekkee wax leen li président bëgg ci élection législative bi ñu jox leen une majorité à l'Assemblée nationale porte rawatina nag foo xamante ne ci liste bii foog naa Rama Ado wax na ko li ci am mësul am président Macky Sall en tout cas ñun bañ duggee politique di fekk ay élection législative mësuñu gis autant de jeunes investis dans une liste donc dañ ko ci gërëm di ko ci sant di ko ne jërë ngeen jëf yéen ñëpp madame la présidente mu sommes à vos côtés doo wet ci yoon bi xamal ne ko ci foo nekk ak dëkk boo mën ta dem nag xam nañ fa ay nit ñoo xam ne bu ñu leen nee jóg leen ñu jóg def leen ñu def wax leen ñu def ndax dañoo yàgg ci terrain bi ñu ngi lay gërëm di la sant mais